église damay prière dama koy ñaanal te xamuma ko je ne le connais pas mais Yermande, Yermande. Mhm. nga koy setan, ñu koy xokatal ay domam wara jangi, ñu bañ duñu jangi mu wara dem juma. ñaani ji yalla sunu borom mhm. ten ñom nenañu dañu gëm yalla sunu borom ten nenañu dañu gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. te nit ku gëm yalla do def lu ñaaw do def lu kon do wax lu kon do toroxal jaamu yalla mais na ma yàlla baal te jéggal ma ñii yéeféer a leen tane ndax yéeféer am na li mu gëm mm. juif bi am na li mu gëm mm. kon nag nañ leen xoolaat suñu toogaay xol laa waxe sëñ bi xol xol laa waxee nga baal ma nga nga baal ma tey boo nekkoon ku jege nga ku jege lool euh, Adji Raby Sarr lan nga koy wax tey ah ma ne nga baal ma tey boo nekkoon ku jege lool Adji Sarr loo koy wax aji saar bu ma ko jege woon dama koy mbéj sëñ bi. da koy mbéj. dinaa ko mbéj. Mm. ah oui bi aji saar bu ma ko jege woon ñu may ma cinq minutes dinaa ko dóor dóoru njaago yu metti parce que méritoowul aji saar ay mbokkam ci jëmm bu aji saar man je crois que ay mbokkam ay juif lañ. Mm. aji saar man defe naa ay mbokkam nekkuñu nit parce que parfois xaalis day aveuglé nit. Mm. ndax aji saar sax aw lu ma ko wax sëñ bi. Mm. parce que nit ku toog ngay wax ak MC nga ne diw tëdd na ma diw tëdd na ma diw tëdd na ma xam naa fiñ may jaar kii lu ma koy wax mm. Adji Sarr elle a pas de pudeur mm. voilà donc su ma ko jege woon sëñ bi duma dama dama koy dóor je le frappe je le massacre dama koy dóor voilà Adji Sarr bu ma ko jege woon man njaago bi maa ko wax dama koy dóor je n'ai le dire parce que Adji Sarr tax na man je dam léegi da ngay gis nit kuy am ku ëmb te avant nit ñi dañuy bëgg doom bu jigéen sëñ bi. Mhm. mais dañuy ne yàlla na ma yàlla may doom bu jigéen. Mhm. tax na ku ciy ñaan danga yàlla na ma yàlla may doom bu góor. d'accord jërëjëf. ah woy sëñ bi. Mhm. kii bu ma ko jege woon dama koy dóor li njaago naan mam bu pul mam bu pul. jërëjëf. parce que sama xol dafa jeex sëñ bi. d'accord jërëjëf. jërëjëf sama xol dafa jeex da ngay fii. ñu nekk fii tubaab yu bari ñu nga xamante ni tubaab yu bari samay collègue tubaab ñu bëri dañu bëgg Ousmane Sonko détesté Macky Sall hmm. parce que yàlla kat dafa ànd ak aji dëgg ji wallaay ñaata audio moo fuité hmm. ci ñoom hmm. ana tampi xaw ma tampi je ne sais wax na fi ba mujj